seen émission alfatawa des na leen ko baamtulal ajju alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyai wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahuma allimna ma yanfauna wanfacna bima allamtana wa zidna ilman ya aziz ya karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñuy topp ci rajo Kepar FM 99.7 fii ci kawlax fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat ci jotaay bi ñu bokk muy jotaayu fatawa muy jotaayu xam-xam jotaayu ubbee ngeen ci ànd ak cheikhana docteur Mouhammad Ahmad Lo mu féete woo tontu seeni laaj alhamdulilah ñu ngi ci jotaayu téeméer ak juróom fukk ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dolli ñu tawfiq ñu yàgg koo ànd ak yéen yàgga jëriñu yàgga taataan ñu ngi sant di gërëm yi nga xam ne dañoo woote rek ngir ziar ak bàyyi fay ñaan yu am solo yal na ko yàlla nangu na ñu jox la kàddu gi niñ ko baaxo defee ci jotaay bu nekk nga ubbil ñu jotaay bi su ko defee ñu jublu ci liggéey bi bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruh wa naudu min shururi anfusina wa min sayyiati amalina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 di ñaan bi tabaraka wa taala mu may ñu tawfiq ak ndimbal ak yërmaande kon Cheikh Abdallah li nga tey mel na ne xaw naa takku kon duñ yàggal gannaaw bu leen nuyoo nuyu ki nga nekkal ci technicien bi Serigne Fafa kon bismillah alhamdulilah cheikhana al imam Bachir Diop gannaaw ay ñaanam ak i nuyoom nee na lan mooy atte yi li ñuy tuddee campagne électorale yi nga xam ne miin nañ ko ci suñu réew yi ci niñ koy defee eh, lan la ko lislaam àtte nan la ko lislaam di àtte waaye it politiciens yi nga xam ne su jotee ñu ñëw dig mbooloo mi ay dikk dig yoo xam ne lu ci bari duñ ko sottal yooyu yëpp nan la ko lislaam gisee alhamdulilah euh, sëriñ Bachir Diop imaam euh, ñu ngi koy delloo am na yow di ko ñaanal tawfiq ay laajam euh, lu gën a bari day faral di jëm ci actualité yi nga xam ne dañ koy dund waa li ñu tudde campagne électorale day ak li ñu koy doxee ci suñ démocratie ñun munta doon loo xam ne lu lislaam di rafetlu la ndaxkat lañ doon séentu ci campagne électorale mooy bu fekkee ne danga gis ne liggéeyub réew mi ni muy doxe du noona te yow nga wóolu sa bopp ci ne boo jotoon ci réew mi walla lenn ci ndombay tànk yi ñuy takkal nit ñi ci réew mi danga mën a def lu gën li fi nekk lañuy séentu ci yow ci biir campagne électorale nga présenté sa bopp yow ak sa programme yaay kan la fa nekk nit ñi xam nañ ko boo leen waxee lu gën loola nit ñi waroomi xel lañ danañ ko xam waaye danoo gis ne lu gën a bari ci campagne yi ñuy jëfandikoo tey lu ëpp genn wàll ga day dellu rekk ci isqaat keneen moo xam ña fa nekkoon la di daaneel ñi nga xam ne ñooy jéem a ñëw di wuññi seeni awra lépp lu leen di suufeel ñi di ko wone lépp luy rafet ci ñoom ñi di ko nëbbu bu dee ñëy jéem a ñëwit lépp lu fi nekkoon rek pour ñoom baaxut lépp lu ñu xam ci lu bon pare nañ pour wax ko ci li nga xam ne mooy li fi nekkoon te doo dégg ñi wax lu rafet loo xam ne dañuy wax ne lii de lu rafet la waaye mënoon naa gën a rafet kon aw campagne wu ñaaw la boo xam ne dafa tegu ci tagg sa bopp ak suufeel keneen lu mel noonu nag lislaam moom du ko rafet du ko rafet lu mukk lislaam dafa am ay principe yoo xam ne daf koo jàngale mooy yàlla dafa santaane rafetal ci lépp inna allaha kataba al ihsan ala kulli su kenn ci yéen di rendi sax rendi nga xam ne moom daanaka lépp ométit la nee na su kenn ci yéen di rendi sax na rafetal rendi boobee digg yi moom dañ koo tàmm ndax sooy boo nga ne ba campagne dalee am fii ci Sénégal ba tey ñu fi xëccoo nguur ku dikkagul ku ne boo dégloo la muy wax danga ne gongo waaye su ñëwee it rek xawma luy doon gàllankoor ba waaye da gis ne lam diggee woon moom defu ko loola moom naka jekk rek moo fi nekk loolu moo tax dañuy dem ba mu yàgg ñi nga xam ne mag lañ te xam ne yëf yi doxe ñoom dañuy dem ba dañuy wax rek nan lu nit mën a wax it nan def ci yàlla rek ba ba ñuy gis lu wuuteeg la fi daan am noonu rek la ñuy doxee ba ba ñuy gis lu mel noonu ñi nga xam ne ay ndaw lañ nag nga xam ne ñoom xëy na dañoo bees ci biir terrain bi suñ déggee ay digg yu naat rek dañu daal di wax ne ah alhamdulilah ginnaaw dégg nañ lii fekk xamuñu ne la ñuy dégg naka jekk loolu lañ daan dégg ci képp koo xam ne dangaa nekk ci campagne bis buñ demee nag ba gis loo xam ne bokkut ak loola ñu xam ne lii moom bokkut ak loola waaye daal eh, doxin wi daal rafetut ala kulli xaal rafetut rafetut naam barakallahu fiikum cheikhana al ba tey dafa cee toftal beneen laaj nee na li ñuy tuddee élection ci boppam ci ni ko suñu réew yi tëralee di ko doxale noonu lan moo lan moo ci gis-gisub lislaam alhamdulilah waaw élection ak nu ko lislaam gise de lislaam moom xamut lu ñuy tudde xëccoo nguur loolu moom tërewut noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf fee nekk ba jóge fi bàyyi jullit yi ñu tànn ku leen doy amul kenn ku jóg ne man maay candidat bi waaye ay nit ñoo daje doon la ëpp ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa te ëpp solo ci ñoom ñu tànn abu bakar as-siddiq radiallahu taala anhu abu bakar siddiq dem ba war fee jóge moom ci boppam mu tànn omar ibn alxataab radiallahu taala anhu loolu lu ci nekk nekk benn forme boo xam ne bii yonent bi appliqué na ko bii Omar bokk ci xulafaa rashidun yi ñëw eh, Abu Bakar bokk ci xulafaa rashidun yi doon ko ci gën sax appliqué ko muy tànnal boppam bi nga xamee ne Omar ibn Xataab ñëw na mu ne man dey su fekkee ne dama bàyyi xeet bi ñu tànnal seen bopp am na ku def loolu ku ma gën mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma leen tànnalee njiit it am na ku ma jiitu ku ma gën koo xam ne def na ko muy Abu Bakar kon liibar na ci ñaar yooyu bu ko ci neexoon mu def ko waaye nag radiallahu taala anhu dafa nekkoon administrateur bu mag a mag mag boo xam ne li mu def ci lislaam ci wàllu administration euh, bind nañ ci ay téere mu indi benn forme boo xam ne dafa boole yaar yooyu muy tànn juróom benn ci kàngami saxaaba yi ñi nga xam ne dajale nañ xam-xam akum xel akum jub aku xam àdduna mu tànn leen ni juróom benn yii man ñoom laa fi bàyyi su fekkee ne Euh, génn na àdduna te jamono yi muy def loolu fekk na jam nañ ko ba noppi xam na ne moom jeexal na su fekkee génn na àdduna ñoom juróom-benn yi nañ tànn kenn ci seen biir ngir mu war a jiite xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi loola amee kon dangay gis ne dénkaane na ndax indi na juróom-benn nit waaye it wuutalul kenn tànnul kenn kom na ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon boole na li yonente ba defoon ak li abi abou bakar siddiq radiallahu taala anhu def naka mu ko def abdourahman ibnu awf nekk ku ñëw mu daal di rocc ku ne leen man euh, bokkatuma ci dama leen ko bëgg a la di leen wax laaj kan mu mën a bàyyi ñëpp di bàyyi ñëpp di bàyyi ba mu des ñaar loola rek la soxla woon ñaar ña des mooy Usmaan ibnu Affaan ak Ali ibnu Abi mu daal jóg nag topp nit ñi di leen laaj nag ñaar ñii koo ci bëgg tey mu wuutu Omar ibnu Alxataab ci kaw suuf ñuy nettali xadiis bi wax nañ ne bàyyiwul fenn lu dul dugg na ko laaj leen ba dajal màddina ba jigéen ñi nekk ci seen biiri xayma sax taxaw na ca bitti di leen laaj ñu ne ca biir di tontu def ko ba loolu jeex mu dox ci baadiya bi ak dëkki kaw yi ku mën a dajal ku rekk mu laaj la ñaar ñoo ñii loo ca xam waaye nee na ba mu noppee lay résultat am mooy gisul ñu weccee <coughs> ñu weccee ibnu Affaan radiallahu taala ak kenn li nga xam ne weccewuñ Usmaan ak kenn nag ci la daal di jaayante osmaan xeet wi daal di jaayanteeg Ousmane forme boobu moom la lislaam daal di jël ñu xam ko muy tànn lu ñuy tuddee ahlu shura su fekkoon ne loola la ñuy jëfandikoo duñ sonn ci ay ndax ñoom ahlu shura muy boroom xam-xam yooyu yi nga xam ne ñu maandu lañ xooluñu parti xooluñu askan xooluñu benn xeetu péete waaye njëriñul xeet wi la ñuy xool su fekkoon ne eh, noona la ñuy tànne kon démocratie ba lislaam di indi dana doon boo xam ne bu mucc ayib lay doon ndax ñooy tànn ñooy xool ci xeet wi ba tànnal seen bopp ne diw ak diw ak diw day ñooy candidat yi su ñuy laaj nit ñet ñoo koy organiser seen bopp ci forme bañ koy defee mën naa doon ay élection yoo xam ne ay carte lay doon wala leneen kooku formalité rek boo xam ne moo koy àggale liggéey bi su booba dara du ci nekk maanaam aaliya lay doon loolu nag moo wuutale xeetu tànnin ci lislaam ak démocratie bi nga xam ne moo jóge Occident ni ñuy tànne ànd ak yu bari ci xalaat yi doxalin ci jullit yi lañ ko jële waaye dañoo ñëw ba foofu nag ñuy jërgati mooy amuñu lu ñu tudde ahlu shura yoo xam ne ñooy jóg di organiser loolu waaye mbooloo mépp rekk lañ boole ñuy tànn sànni ko noonu rek ci dénd bi ñu xel la di tànn ñu xellu wut ña di tànn ña baax tax a jóg di tànn ña bon tax a jóg di tànn suñu baax ña di xalaat ku baax ku leen war a mën a jiite ñu bon ña ña ngay ku bon ku leen war a mën a jiite ñenn ñu nekk ak nañuy xalaate su ko defee réew ya moom lu ci gën a bari rawatina ci suñ réewi Afrique yi nga xam ne ñoom démocratie bi daa mel ne day mbubb moo xam ne xaw ma daa xat ci ñoom xaw ma daa ëpp waaye daal ña ko créé moom nañ cey jariñoo ñoom daa mel ne ba léegi mënaguñ cee jariñoo la ciy firnde rek mooy saa boo xam ne élection jub na ci réewum Afrique euh, nit ñëpp buñ toogee ci euh, ëb nen daanaka du toj ndax njàq rek yan deret moo war a tuuru gi yoon ñan ñoo ci war a faatu lan moo war a lakk gi yoon loolu lañuy ñuy séentu ba ba ñuy gis safaan ba sàllaaw kuy toog ku nekk rek bala ngaa toog am na deret yu tuur yoo xam ne daanaka nit ñi duñ leen fàtte su keneen ñëwatee rek defati noonu mu continuer kon day mel ne tànnin woow yi moom tànnin wu jaxasoo la wu lëj la boo xam ne forme bi ni ñu ko tegee lislaam moom mënu ci ànd waaye nag tànnin wa nga xam ne moom la lislaam indi woon moom suñ ko jëloon dana gën a mucc te yooyu ñu ci ragal yépp mën na ca mën na ca bañ a am su boobaa kon daal وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم أحسن الله di woote ca kër jarapël nee na yiliman buy julli ba yàgg ngant dab ko ci biir julli gi mu kuutal am ko mu ci mbooloo mi teg ko palaasam ngir mu mottali julli gi waaye fekk ba muy dagg julli gi moom imaam ba mu génn faatixa matagutoon mu ne ki nga xam ne mooy ki wutu imaam su ñëwee ndax day xool rekk fa imaam yemoon ci faatixa ji mu continue foofa wala boog dafa war a tàmbalewaat faatixa ji ca fam alhamdulillah ci wuutu imaam fekk mu doon jàng fatiha te jeexalagut waroom xam-xam yi am na ñaari wax yu ñu wax foofu am na ñu ne bu fekkee ne xam na fi imaam ji yemoon nga xam ne jàng ba daaneel comme siraatal mustaqim yem foofa su dikkee rek day daal di kàpp day daal di dugg day daal di taxaw fa war a taxaw rek daal di ne siraatal ladina anamta alayhim loolu am na ñenn ñu ko wax ne day continuer fa mu yemoon am ñu ne nag li gën ginnaaw fatiha la te àggalewu ko woon moom na tàmbaliwaat fatiha eh, jàng fatiha yi boppam ala kulli xaal lu mu ci def lu nekk lu baax la waaye nag continue gi day lu mën a nekk la ndax su fekkoon ne da doon julli ba def benn rakka eh, dugg ci ñaareelu rakka ba la koy gaar gaar ko mu génn su wutalee ka muy wutal du ñëw di julliwaat rakka ba weesu woon Eh, waaye day continuer rek ci ñaareelu rakkaa loolu moo lay wone ne fatiha ji su fekkee xam na fi mu yemoon bu wér su dikkee rek day daal di continuer wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana Serigne Modou Gueye day laaj nee lan moo war a doon taxawaayu yilimaan bu taxaw ci minbar ndax yell na ci moom muy wane féeteem ci ko jug politique ba yegg sax léeg-léeg ci di ŋàññe kim jàpp ne gisee eh, kim jàpp ne àndut ak moom <coughs> ndax loolu daal taxawaayu yilimaan la yilimaan boo xam ne day wane ak piétéem ci wàllu politik ba noppi di ko fésal ci min baram alhamdulilah taxawaay bi limaan day ci situation yi politique yi nga xam ne moom la ñuy faral di tollu ci sunu réew yi ak ci sunu réew mii rawatina suñ jubee ay campagne wala ñu nekk ci biiri campagne jub ay élection taxawaayu imaam day mooy kuy dalal nit ñi la war a nekk ku nëtërit la war a nekk su xasee yéeg nag ci ab min baram su ko neexee nag na bokk ci politique ba wala mu bokk ci ñuy wate su wate jotee su ko neexee na am kum faral sax nag waaye nag min bar ba foofa du palaasam min bar bi min baru jumaa la boo xam ne askan wépp ñooy ànd di ñëw di julli si ci jumaa ja askan wépp ak seeni jubluwaay ci wàllu diine muy seeni tariqa ak seeni ngir askan wépp ak seeni askan muy famille yañ bokk askan wépp ak seen langi politique yañ bokk kon jenn imam sañul taxaw ci ab minbar boo xam ne jullit yi noonu lañ ko bokkee ci ni ñu séddalikoo mu ñëw taxaw di fésal péetéem di ŋàññi keneen koo xam ne dafa àndut ak moom minbaru àjjuma loolu moom tax ko jóg te itam doonut lu jaadu doonut loo xam ne lu dagan la Euh, képp ku ko def def loo wóor na leen su fekkee borom xam-xam nga bu xam wàllu imaam ci biiru askan wóor na leen yaa ngi jalgati charte nga xam ne mooy charte yi chariatul islam naam. ahsanallahu aleykum cheikhana Abdul Karim Cissé nee na dafa bëggoon a xam daal cosaanu baatub zam-zam lan mooy cosaanam ndax léeg-léeg mu dégg am ñuy wax ne. zëm-zëm day baat la boo xam ne eh, cosaanam pulaar la mu ngi jógee ci jam-jam ceenam ko waxee moom bu bëggoon a xam daal cosaanul baat bi lan la alhamdulilah zam-zam day ab teen la boo xam ne bu ñu barkeel la boo xam ne mi ngi ci Makka digganteem ak kaaba gi mu féete ko penku di toll ci ñaar fukki meetar ak benn seen diggante noonu la toll di teen boo xam ne it fanweeri meetar la waaye bët yu bari nag ñooy bënn di xelli ca biir teen boobee moo tax ndox ma bari dafa nekkoon doonub teen ba ci jamono yoo xam ne taxu ko yàgg lool waaye bi ñu gisee raj raj loo metti ba fa nit ñuy def ba ay faatu di ca am ci lañ ko liggéeyee neneen noo xam ne dañ caa xëcc ay tiwo génnee ji ko ci yeneeni barab yoo xam ne fa nit ña di naane barab yu feccanti ko te bari mu au lieu muy nekkati benn bërëb foofa ñu far defar ko ba mu jekk terrasse ko ci kaw nit ña mën fa di tawaaf bérébu tawaaf boo gën a yaatu baatub sam-sam nag ndax làkku perse la wala làkku abre la ala kulli xaal dañuy delloo turwa ca soxna si ibrahima alayhi haajar jamono yi nga xamee ne ismaila judd na ndox ma di ball ba tuuru ba bari ñu ne zam-zam jooje mu wax di ko wax zam zam ñu ne daf doon digal ndox ma mu dal ah loola nag lu yàgg la ndax waroom xam-xam yi bind ci wàllu histoire dañuy wax ne jamono ibrahim alayhi salaam jiitu na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa lu mat ñaari junni at loola nag yàgg na lool askane la ko nag aw làkk woo xam ne fii la ci làkki Afrique yi loola delloo ko ci taarix lu xaw a jafe lay doon ndax doo xam wan làkk moo jéggi ci moroomam te kenn ku nekk xam na ne làkk yëpp dañuy duggante làkk woo dem mën na ca am ay baat yu nuroog ay baat yu nekk ci weneenu làkk waaye ngir nga mën a dogu nag ni ñii ñoo ko jëlee ci ñii day daal di doon lu jafe lu dul su fekkee da xam ñaari giir yooyu gan gan la mu wóor la ne gële moo jëkk a sosu gii su ko defee nag askan wa jëkk a sosu weneen wi door a ñëw gannaawam ñu door leen a xam da xam ne wii su fekkee baat bii dañ koo jële fële kon ñii ñëw ko jële ci ñële waaye kële doon wax sam daal xam naa ne ko yàgg la moom ndax ñaari junni at lu jiitu yonent bi boo ci dolli junni at ak ñeenti téeméer yu tegal yi nu nekk kon ñetti junni at ak ñeenti téeméer diggante ba soxna soose waxee sam ak léegi loolu da koy daal di mat moo tax yu mel noon daal noonu doon ci dogu ci dara ne nii la waaye doon dàq dara itam nag ci googu anam jazakumullahu xeyran cheikhana Babacar Ndiaye di wootee si ba soor na ndax am na teqale diggante sangu janaaba ak sangu aljumma alhamdulillah mboolem cangaay yi nga xam ne sharia da ko santaane ñoo bokk nuñ koy defee yéene yi rek ya nekk ci xol ba rek moo leen di wutale lu dul ne nag cangaayul janaaba dafa am lu ñu tudde xubbiku muy jëkk raxas sobe si ba àggal door sangu bu dee yeneen cangaay yi ci des nga xam ne janaaba waralu ko nag su boobaa amul lu ñu tudde xubbiku waaye day sangu rek ca nam doon sangoo bi mu xubbikoo ba noppi mu jiital cëri ndeyjoor ya teg ci càmmoñ ya wallahu taala alam ahsanallahu ilaykum cheikhana Moustapha Badji day laaj nee na lan lañ jublu ci baatub riba mooy baatub daal bëggoon na ku ko ci indil ay leeral alhamdulillah riba day baatub arab la boo xam ne mi ngi jóge ci raba yarbu raba mooy dolliku na wala la ne màgg màgg na bu la neexee nga ne sakkan na borom bi nee na wa ma aataytum min riban li yarbuwa fi amwaali nnaasi fala yarbu inda allah riba nag buñ ko waxee ci alal mooy alal joo xam ne day dolliku ci anam gu bokkul ak bénéfice juuyoo ak la sharia santaane loolu moom lañu ñu tudde foofu lañ ko jële moo tax riba bi gën a fés ci riba yi mooy ribal fadl ribaab ndolleen kaay ma lebal la juróom boo may fay fay ma fukk loolu ak dolliku la goo xam ne dafa wuuteeg shariatul islaam moo tax ñu tudde ko riba wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi nee na moom day dafa juum ci biir julleem jaawale tudd yàlla yi nga xam ne moom la ñuy def ci sujud yóbbu ko ci ruko mu ne mu bëggoon a xam nag ndax dafa am lu ko ci war ci biir julleem nee na jaawale maanaam njuumte njuumte rekk moo tax mu tàbb ci loolu alhamdulilah tudd yàlla yi nga xam ne moom lañuy def su rukkoo ak su sujjootee genn ku ci nekk def ko palaasam ci li jaadu ci biir julli la ci sunna julli ci la bokk su fekkee da ko jaawale te tëyu ko nag fàttaliku ko te fekk jógeegul ca ponk ba da koy def rek maanaam su fekkoon ne daa rukkoo ne subhaana rabbi al aala daal di koy fàttaliku na daal indi la nga xam ne moom la war a wax subhaana rabbi al azim wa bihamdi su fekkoon ne daa sujjóotit loola dal ko mu fàttaliku ko noonu rek lay def su fekkee fàttalikuwu ko nag ba mu weesu su boobaa nag moom dara waru ca wallahu taala ahsanallahu ilaykum cheikhana mbokk mi nee na bisub àjjuma nee nañ malaaka yi suñ demee ba yilimaan taxaw ci minbar bi su boobaa dañuy lem seeni kayit nag toog di déglu ñi ñëpp mu ne foofa ki nga xam ne daf ca def ab yiw ci diggante bi ilimaan di xutba lu mel ni mu toogoon te di jàng alxuraan wala yu ko nuru ndax dañ ko koy bindal mu ne it su fekkoon daf caa def ab safaan daf caa def bàkkaar ndax dañ ko koy bindal li fekk malaaka yi ñoom na nga toog ñoom fi ne lem seeni kayit di bind wala loolu daal noonu koy déggee alhamdulilah xadis boobu di wax malaaka yi dañuy lem seeni kayit mu ngi jëm ci tuyaabay ndolleen yañ doon bind ci sababus teel a ñëw ci jàkka ji ku jëkk a ñëw danañ la bindal nangam maanaam gëleemu tukkal ku ñëw ci ñaareelu waxtu wa ñu bindal la ab xabbon ñëw ci ñetteelu waxtu wi lam xaaf noonu la koy toppe ba ci ab nen yooyu muy tudd ndolleen la danga am tuyaabay jullik ajjuma ba noppi ñu tegal la ca ndolleen ci sa bosteel ngay ñëw su imaam xasee dugg nag malaayka yi toogatuñ fa di bind ay ndolleen ndax ndolleen yee jeex na bu boobaa la xadis ba di jàngale mooy su imaam xasee ñëw yow teelatoo ñëw kon yeex ngaa ñëw kon ndolleen ya raw na la loolu nag dàqonte wut ak lu baax la nit ka di def malaaka yi continuer di ko bind loolu mu junj wax na muy jàng alxuraan imaam di xutba loola moom luñ tere la jaaduwut foofu moom bu fa amul bàkkaar tuyaaba moom du ko fa am ala kulli xaal nag toog toog di déglu xutba bi nag loolu moom da am tuyaaba te malaaka yaa ngi koy bind kon lemuñu këyit yi bind ay tuyaaba mutlaqan wala nga def ay bàkkaar ñu bind ko mutlaqan déedéet waaye këyiti ndolleen yañ doon bind yooya lañ dem ñëw toog ndax ndolleen amatul foofa dañoo delluwaat ci seen liggéey bu njëkk ba la naturel mooy nit ka lu mu def ci lu baax ñu bind ko lu mu def ci safaan itam ñu bind ko wallahu taala alam ahsanallahu ilaykum dégg ci seeni fatawa ngeen ni mëneesuta boole gunge weeru koor ak fay weeru koor te moom booba dafa fekk moom def na ko ba noppi muy laajte nag ndax fi ne maanaam fay ko waraat wala déet alhamdulillah woor ramadan ba mu jàll nga woor eh, juróom benn fan ci weeru shawaal loola dafa am tuyaaba ju rëy yoo xam ne day mel ne ku wóorum at mënee su ko boole dëgg la loolu moo nekk ci fataawaay boroom xam-xam yi maanaam munoo yore bor dikk ne damay fay bor bi waaye dama koy boole ak di woor juróom benn fan yi loolu mënuñoo ànd boroom xam-xam yi kay fa ñuy juuyoo mooy ñoom ñaar lan la ci war a jëkke ndax faw daa war a fay borom ba noppi door a woor juróom-benni fanam wala bu ko neexee mu woor juróom-benni fan yi fay bor bi mu bàyyi ba ci weer mu door koo fay lenn ci borom xam-xam yi nee nañ faw mu woor weeru ramadan ndax daf man saama ramadana summa atbaahu sittan min shawal su wooree weer wi ba noppi teg ca baatu teg ca jooju yi mu wax ñoom foofu lañ teg ca loo ne faw mu fay ba àggal doora mën a def juróom benni fanam loolu nag mënees na ko jàpp ne mooy cosaan li maanaam fay ba noppi door a woor su juróom benni fan waaye su fekkoon ne dafa yore bor bu bari boo xam ne su ko fayee ci weer wi la cay des duutu mat juróom benni fan te bëgg naa woor juróom benni fan yi kon mën naa woor juróom benni fanam ba àggal door fay waaye nag su fekkee ne moom situation bi muy wax da doon fay jàpp ne mi ngi ci boolewaale juróom benn fanam yooyu woor la muy woor ba sottal na xam ne fay na borub ramadaanam waaye wóorul juróom benn fan yooyu loolu rek moo koy gaar waaye nag eh, di caagi ne day war a fayaat ginnaaw yéene woon na fay gi boole ca loo xam ne lu taxawut la la ca taxawul moom day daal di rot rek àndu ca du ko mën a yóbbaale du yàq lam doon def itam kon fay daal la def waaye e, wóorul juróom benn fan yi wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi nee na dafa umra ba noppi maanaam lim ci nam mooy def na armal na def na tawaaf def na safa ak marwa mu dese ko nag wat boppam nee na mu génn dem ca hôtel ba waroon na wat boppam farfàtte ba tàmbalee sol yéreem bi mu tàmbalee rek ci la fàttaliku ne moom de watagul boppam mu ne ndax ci anam gu mel nii am na lu ko war wala dara waru ko alhamdulillah ki nga xam ne da umra ba wala mu aj ba àggal defagul taxallul maanaam watagul wati watis gi koy génne ci jaamu yàlla googu mu doon def mu tàmbali sol yéeréem daal di koy fàttaliku summi ko door a dem watu kooku dara waru ko na daal di watu rek bu noppee mu daal di sol yéeréem wallahu taala alam ahsanallahu mbokk mi day laaj nee dafa dégg daal ñoo xam ne dañuy tere nit ki umraal koo xam ne mi ngi dund mu doon laaj lan mooy àttee umraal koo xam ne mi ngi dund alhamdulilah moo kay nit dana umraal kuy dund ndax su fekkee ne kiy dund mën nañ koo ajal te aj farata la ju àgg ci nekk ponk umra mi nga xam ne e, sunna la su feddliku kooka moom taxut ñuy wax aj ak umra atte yu bare bare bare ñoo ko bokkle moo tax daanaka la leen di juweele rek day doon loo xam ne ab dalil mooy ñëw firndeel ko ñu xam ne kon lii bokkul ci umra waaye su du woon loolu rek dañuy jàpp ne aj ak umra seen lépp day daal doon benn waaye dalil moo ñëw won ne umra taxaw arafaat bokku ci dem minan bokku ci waaye su dul loolu la ngay def ca kaaba ga la ngay def safa ak marwa loolu ñoo ko bokkale kon seeni ahkaam mi seeni àtte dañoo jokkaloo ni ñu mën a ajale nit noonu lañ mën a umraale nit kuy dund charte ba rek eh, li am solo mooy sàmmoonteeg moom muy kii di umraal nit wala mu koy ajal na fekk moom umraal na boppam wala mu ajal boppam ba noppi mu ngoog wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana mbokk mi ba tey day laaj nee na ki nga xam ne dafa armal ngir umra ba ba noppi nag ñëw màkka def ab diir lu mel ni luy jege bis walla boog xaaju bis nekk ca otelam daal mi ngi ak waaye demul wëri gannaaw diir gu yàgg googu nag mu soog a jug nag dem wëri def safa marwaam mu ne lax kooku dafa am lu ko war wala noonu mu def ndax noona la wala dafa dagan wala daal lan mooy àtteem alhamdulillah kii armal ñëw di umra dugg Makka ñëw toog ci këram walla ci otelam lu yàgg lool door dem defi tawaaf loola yàqul dara ci armalam li feeg mi ngi sàmmoonteeg yi nga xam ne moom lañ koy tere su su armalee mu bañ cee def dara mi ngi wax toog ci suba ba ca ngoon waaye su fa toogoon ñaari fan wala ñetti fan it yàqul dara ci la ko tax a jóg bëgg nañu rek su ñëwee mu gaaw jublu ci li ko tax a jóg waaye su fekkee am na lu ko tax a toog nekk ci leneen ba loola noppi mu door dem umra jëg loola du yàq dara xam nga ne kii aj di def muy def ifraad su ñëwee ba def umraam ba àggal te aj gi jotagul day continuer rek nekk ci armalam te léeg-léeg mën naa doon ku teel a ñëw lool ba weeru tabaski wa daataan teru war faa am lu mat fukki fan aj gi door a jot diggante boobu bépp da koy armalal aj te fekk aj jotagut te du tee bu aj jotee mu mën a dem aj su fekkee nit ki mën naa armal nag toog fukki fan wala lu ko ëpp door a dem aji kon armalal umra toog benn bis loola kenn ku nekk war naa xam ne dara nekku ci naam ahsanallahu ilaykum cheikhana mbokk mi nee na ki nga xam ne dafa aj wala mu umra ba noppi war a watu waaye nag bopp ba kawar newu ca mu ne kooku ndaka lay def alhamdulillah aj ba noppi wala mu umra ba noppi bopp ba kawar nekku ca léeg li waral kawar nekku ca mooy nit ki mën naa ñëw di tamatoo daal di def umraam ba àggal dem jéempul kaawaram waaye daal di koy wat su ko watee te fekk waxtu wa ñuy dem di aji jege na su demee du fekk kawaram sax loolu moo tax foofu rekk lañ e, gënale ne jemp moo gën ñiy watu ki nga xam ne day tamattoo su demee ba àgg ci di watu jemp moo gën ci moom mu watu ndax mu am kawar goo xam ne bu ajee ba war a def taxallul mi war a summi ko ci ak armalam mu am lum wat ala kulli xaal su fekkee ne wat na kawar ga ba amatul kawar wala bindoo na noo xam ne boppam dafa leel ba lépp kawar amatu ci gu ñuy wat su boobaa la muy taxallule lenn ci borom xam-xam yi nee nañ su noppee dara waru ko am ci ñoo xam ne dañoo wax ne dañ koy qiyaas ci koo xam ne amul kawar te fekk leel a ko waral maanaam moom mi watu ki am leel dañoo wax ne na seet ci kawar yi nekk ci yaramam mu wat ca moo xam kawaru poqtaan la wala kawaru naq wala kawar gu nekk ci dënn wala kawar yi ci yaramam daal ala kulli xaal du ñàkk mu am fenn kawar su ko defee bu watee loola rek dal nay summiku ci ak armalam wallahu fikum cheikhana mbokk mi nee na damay jullee ci jàkka joo xam ne ñoom daal du ñuy faral di boole julli ñoom daal boole wuñ ko ci seeni mbir donte léeg-léeg sabab bi day taxaw lu mel ni muy taw wala yu ko nuru mu ne nag su fekkee noonu la tëddee ci jàkka jooj yi muy julle ndax su sabab buy waral ñu boole julli jotee lu mel ni muy julli timis mu fekk ma ngay taw ndax moom ci boppam sañ naa boole timisam ak geewam su ko defee daal di yeewi ko alhamdulilah ñu nekk ci jàkka di julli julli mbooloo te boolewuñ boole julli ci seen mbir ñooñu di jaadu nañu laaye leen biir te xamal leen itam attey julli xamal leen ne boole jullit ci la bokk bu fekkee ne nit ñi dañ koo aajow kooku ak yombal la gu jóge ci sharia te yàlla dafa bëgg yombalam yi ku cay jariñu comme ni ngay jariñoo ci farata yi comme ni mu bëggee farata yi kon nag su fekkee ne mbooloo ngi julli ci jàkka xam na ne ay illa am na yu war a tax ñu boole julli te ñooñu duñ ko def na def ay jéegoom yoo xam ne mooy tax ñu def loola su ko defee nag ba noppi amul njariñ ñu continuer na lool noonu duñ ko def ndax xamuñu ko su boobaa moom saa bu amee illa juy war a boole julli su boobaa sañ naa julli takkusaanam ba tisbaaram ba noppi julli takkusaan wala mu julli timisam ba noppi daal di julli gee loolu moom sañ na ko ala kulli xaal ca biir jàkk ja suñ ko defoon ci mbooloo nag mooy gën day mel ni rek suñ julli woon tisbaar ba noppi moom mu war tukki su boobaa mën naa boole ak julleem dem su fekkee ne dafa gis xiin woo xam ne ragal na ni su génnee dellu ci këram bu wëtuwul du del si julli julli gi ci ci waxtoom su boobaa na boole jaari julli ya te demu yoonam naam alhamdulilahi rabbil alamin eh, mbokk yi mu mel ni yegsi nañu ba tey fi ñu baaxoo yëkkatee suñu jotaay di leen sant di gërëm di sant Cheikhana <coughs> di ko ñaanal suñ borom subhanahu wa taala mu dolli ko tawfiq guddal fanam yokk wéram yàggal taxawaayam di balo àq ñépp te di leen jéggalu di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq àdduna ak àllaaxira kon Cheikhana di jox la kàddu gu mujj nga tëjee ñu bi nañ ko baaxoo defee ko defee ñu dig mbokk yi daje incha allahu ay bés bii di ñëw ci seen beneen jotaayu fatawa di sàkku ci yéen ñaan yal na yàlla defal tawfiq allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa